أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم mbokk jullit yi السلام عليكم mbokk jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu xaq di leen jox seen wàcc waaye di leen jox seen cër tey nag yàlla daf ñu indi ci sunu kër wuy jur boo xamante si ni moom la ñuy sagoo di ko ndamoo adduna bépp di ko tiitaroo muy sunu nijaay muy alxaaji Mouhamadou Mansour Mbaye ñu fii ci wagu ñaay ak Tivaouane TV la lumière de la tey nag li ñu tax ku ne xam na ko mooy li lëmbe adduna bi lëmbe réew mi lëmbe bépp adduna ak senegal ñu fii nag ci suñu wayjur war ci waxtaan ak moom mu dugal ñu ci xalaat kon ñu def lu rek jox ko kàddu gi mu sotti ñu ci dolli ñu yeneen xalaat lu ñu war a def ndax mag daal du yàlla waaye yàgg na ak yàlla salaamaaleykum asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu ci Tivaouane TV maa ngi jël kàddu di nuyu sénégalais yépp ak sénégalais yépp Donc, ndokkeel ñëpp un qui le 4 avril du fait fête de l'indépendance Je ngi fàttali de le oui et le non le oui pour rester dans la communauté française le non pour partir à l'indépendance immédiate Nous avons li bari nous oui pour rester dans la communauté française c'est le 4 avril maa fait fàttaliku la fédération du Mali avec l'éclatement du Mali maa ngi fàttaliku le président ak Senghor keroog ba nommé de changer la constitution 80 députés 33 maires avec le bureau politique maa ngi fàttaliku le premier défilé qui libération des Sannes, qui ca gaar Dakar

Nous avons fàttaliku bu de ki le président de la république Abdou sorti majeur de sa promotion à la France d'outre-mer Nous avons fait le coup de de avocat bu maître Abdoulaye Wad, agrégé de droit ingénieur bu Je suis je ne suis pas d'accord Et à chaque fois quand je ne suis pas d'accord je suis libre de le dire kon d'accorduma ci li ñu bëgg def ci assemblée nationale kon maa ngi dem dékki yàlla sama loxo di kan di la pré <laughs> di kan di le président Macky Sall ak tant d'autres yoo xam ne jaar nañu fi ci di leen fàttaliku ci le 4 avril di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def jàmm nga xam ni nag moo xew. bëtt na Allemagne bëtt na Amérique bëtt na Espagne bëtt Italie ba yegg si ci Senegal, muy Covid 19 di jàngoro Jo Hamni, ni kenn xamul lu ko indi kenn xamul lu koy fajit lu dul yàlla musal ci jaam kon nag nuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala bi xam dara tëwu rek man sunu feebar buy xam ni bëtt na àddina bi yëpp sunu borom tabaraka wa yaa na ko yàlla yàlla yemale fii ci senegal ba nu dem ba dootuñu am kenn ku xam ne bokk nga ci feebar bi. Tivaouane sunu maam Alhaji Abdoul Aziz moo ko wax te lu mu wax nitu yàlla yëpp ànd loo wax ko xalifa bu tedd ba yaa na yàlla yokk leeram. ca taas lu ci barkeem alhaji abdul aziz daana wax ni réew mii wax sénégal mag ngi dul ko mooñaale mooy kan muy sun moom Cheikh Seydi alhaji malik radiallahu taala anhu jàkk yi jumaa yi nasre àq bil àq bi jib lii am sénégal amul fenn ca gannaaw yàlla nag ak yonantu ba ak sëriñam maam alfahima yoro nijaayam ak sëriñam Cheikh Omar Foutiyou Cheikh Seydi El Hadji Malick la kon nag góor googu kenn mënu ko fàtte ak ñaanam yi ñaan ci réew ñaan ko ca Ndar ñaan ko ci Dakar ba ñaari zawiya mi samp bii góor gouverneur Sénégal nekkoon mu sëpp fa zawiya gouverneur national fi mu nekkoon <laughs> de la UF mu sëpp fi zawiya di wax nas bi àq bi la ak kan ak ki tubaab bi yaakaaroon li su demee Gabon du dellu si mu samp jumaam jure yu jooja ca Touba sunu bàyyi Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacke yaa ne yàlla yokk leeram fondement jumaa ja sunu bàyyi Seydi Fadilu moom ci boppam yokk jumaa ja julli jumaa ja sunu bàyyi Cheikh Abdoul Ahad la mu fa ak ay seeni rek kenn xam na mu toll kon nag bu dee Njaasaan ak sa bu dee Canaba ak sa bu dee Layeen ak sa bu dee Cheikh Saadu bu ak mi waat naa ne la sëñ Abdou Aziz Al Amin waxoon ne noonu ne arab am na lu lu gën la xam ne ñoo ñoo ko la woon waaye nag ay mag kenn gën a la wut ko. Ibn Alhaji Mansour sama doomu turandoo sama sëriñ ñaan yi nga joxe à travers le Sénégal. ñëpp gi ci di ñaan ndax soo ñaanee Alaaji Mansuur a ñaan soo ñaanee su turandoo si Boubacar moo ñaan boo ñaanee Alaaji Abdou Aziz sa ñaan Alaaji Abiba ñaan ak jaboot gi ca seen ñaan ñu bari ci biir Sénégal xam nañu ko ba France gàtt ba France jàqee quatorze dix-huit ku dem Sidi Ahmed si ku dem trente quarante-cinq guerre ba tas sa Alaaji Mansuur peste ba ku ñaan sa maam Cheikh Sidi Alhaaji Malick kon Sidi Boubacar ibnu Alaaji Mansuur yaa ak sa ju baax ji papa Malick ibnu Seydi Boubacar ak papa Malick ibnu Alhaaji Abdoul Aziz ak jullit yi ci réew mi ak sang ba ca Tuubaa nag nga xam ne moo doonu Sëriñ Basiru doonu Xaadim Rasuul ak kilifa diine yëpp noo ngi nii di toroxlu ak jàpp ci ñaan yi ngeen joxe

di ñaanal ki xam ni mooy le président de l'espoir le président Macky sal président de la République du Sénégal woote bërki démb wax naa la yow président Macky janoon naa ak yow ni la vous n'avez pas d'ennemis au Sénégal vous avez rek des adversaires politiques noo ngi lay ñaanal yow itam président yàlla may lu gudd fan yàlla may lu wér ba naal yi xam ne naal nga ko ci biir Sénégal yàlla bi xam ne dara tëwu ko naal yooyu yëpp nga wàcc ko noo ngi ñaan sunu pétrole bi ak sunu gaz bii xam ni kuréewul ko président Senghor làmb na ko fu ne président Abdou Diouf làmb ko fu ne président Wade làmb ko fu yàlla tombeloo lu ci ndax yàlla rek moo mën tombeloo ci nii noo ngi ñaan sunu pétrole boobu gaz yàlla yegg seen jàmm ba Sénégal ak Afrique ak le monde entier yëpp bénéfice ci di ñaanal sa jabar Marième Faye Sall di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér wax naa ni palais bi indépendance nu en 1960 waaye ba mu fu duggee ci la palais bi am indépendance. Tivaouane TV. di ñaan nag sunu télévision bii di wax Sidi Boubacar Ibn Alhaj Mansour xalif général Tijani noo ngi lay ñaan nga ñaan ci sa barke maam Cheikh Sidi Alhaj Malick sa barke baay moom lañ la tuddee Sidi Boubacar bi toogal ci xilaafa gi wénde ba 57. sabarka baay isfurtay taariikha sheekh sun axmed tiijaanba gumbay daan wax alaaji maalig oo baay mansuur di ñaan ci sa barke maam ak sa rakk yu baax yi papa malik ibnu seydi boubacar ak papa malik ibnu alxaaji abdul asis ñaan leen ci seen barke maam cheikh sidi alxaaji malik feebar bi yann fi yam di leen ndokkeel nag la télévision bi télévision julit yep la waaye yéen ci ëpp la ci wa Tivaouane TV li gën ci lé moy ñi xamni noko sos sen mam ak sen mamat ñep Cheikh Seydi El Hadji Malick ku ni Cheikh Seydi El Hadji di xaadim rasul ndax mam mara bakki ku ni xaadim rasul sa xel day dem ci sang ba ci Touba sey muntaha mu doon sey basirou doonu xaadim rasul sa xel day dem ci kilifa diine ci réew mi yëpp lu bëgg na ngeen ñaanal nu télévision bi xam ne bu bees la dafa beesaat waaye nag léegi ni mel melu ko woon nuy ñaan nag yàlla def ci barke ci daraje sang bu tedd ba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci darajey kan cheikh Sidi Ahmed Tijani darajey cheikh Omar Foutiyou daraje alfahima yoro darajey ki xam ni ñii samp lii seeni maam ak seeni maamaat ñoom ñëpp Cheikh Sidi El Hadj Malick radiallahu taala anhu di ñaan ci barke Sidi Boubacar Si xalif général Tijani waay waay Tiwaawan TV yan na ko yàlla yegg foo xam ni di wax ne ah waaye télévision bi mësu fi am yàlla mën na ko yàlla bi xam ni mën na ko rek nu ngi koy dégg suñu loxo di ñaanal kilifa diine yëpp yàlla yéegi leen ci maqaame waajur yëpp di ñaan ñi xam ne nag moo sos lii ame ko yal na leen yàlla may wér ak kàttan ak gudd fan ak seeni technicien ba ba nu yóbbu bëgg yóbbu Tivaouane TV suñu borom tabaaraka wa taala may leen kàttan ba nu yóbbu ko fa di gërëm nag Makhtar Ndiaye Makhtar Alaaji Abdoul Aziz sëñ Abdoul Aziz Alamine daan wax ni sama doomu xol ñaan Makhtar Ndiaye ni bu mel nii waaye yàlla mi xam ne dara tuubu Ibrahima Ibrahima yow itam noo ngi lay ñaanal li ñu ñaanal waxtaan noo ko ñaanal yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér seen wërsëg yëpp dugal ngeen ko ci Tiwaawan ci ba tey àddina bi ak le monde entier ko seetaan yàlla mi xam ne dara tëw ko yàlla yokk seen wërsëg yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér sunu baay sunu sëriñ Alhaji Abdul Aziz ne teraanga boo ca bokkee da ngay bëgg teraanga ji yokku ca mbaxtaar yaag ibrahima seen teraanga ci loolu bokk kon sunu mag ñooñu yàlla taas seen barke ñu ñu dékk suñu loxo nag ñi fi bàyyi noo ngi leen di su suñu loxo ñoom ñëpp nu ñaanal Tiwaawan TV bi yàlla def ci barke bu rëy ci barke kan barke sang ba tëdd ci Madinatul Munawwara di sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad waaw gis ngeen ko mi ngi noonu dégg ngeen li kilifa gi wax suñu way jiru wax ko muy alxaaji Mouhamadou Mansour Mbaye di suñu yaay di suñu papa ki ngi noonu déggante bi di mu wax ci message bi suñu sëriñ suñu wasila suñu kilifa sëriñ Babacar Sy Mansour joxe dégg ngeen ko dégg ngeen tamit li mu wax ci réew mi ci indépendance ak ci mag ñi dégg ngeen ko kon foofu lañ ko doon defee ci biir këram ci waagu ñaayi ci fii nga xam ne mooy Tivaouane TV de la lumière de la Tidiane yi ñu ngi gërëm ki nga xam ne ñi nga xamante suñu ñoo taxawal lii ba mu taxaw ku wax Ibrahima Khalil Seck di gërëm ku wax Serigne Mouhamadou Makhtar Ndiaye di leen sant bu baax di leen gërëm sagu ñëpp la sagu Tiwaawan képp sagu àdduna bi di sagu jullit yëpp la ñu ngi ñaanal suñu bàyyi moom suñu mbay yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu noonu ba beneen yoon incha allahu taala